asalaamaaleykum wa barakaatu jërëjëf sëñ Touba jërëjëf borom Touba jërëjëf Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul Touba ca kanam Touba ca kanam Touba en avant je m'appelle Modou Mbacké waa kër borom la bokk talibé Serigne Modou Kara Mbacké J'habite en France, comme tout mourite qui est éloigné de Touba. Son cœur est à Touba. Car cher Ahmadou Bamba est notre tout, et le tout de cher Bamba est Touba. Je fréquente les réseaux sociaux pour m'informer. On peut entendre <clears throat> Cher on faire ses déclarations. que le bon Dieu lui accorde une très très très longue vie innocentée de fer. Je vais aussi sur les réseaux sociaux pour écouter des conférences, voir les réalisations qui se réalisent. <clears throat> Sinbo Kara aussi intervient par mal. Je bois ses paroles. C'est une direction pour nous. Et aussi, Tubatsakanam est omniprésent. Depuis trois ans qu'ils sont à l'œuvre, c'est des réalisations qui se réalisent devant nos yeux, que tout à chacun, c'est merveilleux. Ils sont, ils sont très très très efficaces. Ils réalisent des choses que Touba a absolument besoin. Parce qu'il faut se rappeler que maintenant Touba est une ville qui a 1 500 000 habitants si ce n'est plus, et qui manque cruellement d'infrastructures. Nous tous, nous devons agir, nous lever, nous rassembler pour œuvrer dans le développement de Touba. L'État ne peut pas tout faire. L'État n'a vraiment pas la, le pouvoir ni la puissance d'intervenir à Touba pour euh, fabriquer des centres de santé, pour faire tout ce qui doit être fait dans une ville euh, moderne, l'assainissement, la propreté, l'insalubrité, la lumière, prendre en charge les écoles, les daras. Dans les réseaux sociaux, j'ai vu que Touba Tchakanam réalise toutes ces choses avec les moyens qu'ils ont. Leur credo, 2 millions de mourites, 1000 francs CFA par mois, égale 2 milliards par mois. Ils ont même pas trois ans d'existence. Imaginez un groupe de talibés qui se rassemblent et qui ont cette vision des choses et qui trois ans après, aujourd'hui, tout ce qui a été réalisé grâce à l'idée qu'ils ont eue. Cheikh Ahmadou Bamba a mis la main sur eux pour que ce mouvement aille de l'avant. Moi, en tant que talibé, quand je regarde les réseaux sociaux, à un moment donné, j'ai eu un déclic. J'ai dit, mais je ne peux pas me permettre de ne pas faire partie de cette histoire-là. C'est l'histoire qui défile devant mes yeux. C'est une réalité, tout Kanam. Mourid Bounek, 1000 francs. Il les dépose dans Toubatikanam. Mais regardez ce que ça a engendré. Toutes ces réalisations et tous ces projets qu'ils ont. Donc maintenant, l'appel tous les mourides de la diaspora, dëgg-dëgg mourides de la diaspora qui habitent en Europe et ailleurs, 1000 francs et 10 euros par mois. Ça fait 6500 Sénégal. Ça veut dire que même nous, à la diaspora, on remplace 6 talibés. 10 euros par mois, on les donne de façon pérenne. Parce que c'est pas donner 10 euros un mois et puis après croiser les bras. Non, non. C'est 10 euros par mois. Dans chaque ville, dans n'importe quel pays, On peut dire qu'il y a un représentant de tout Batsakanam. Réalisons ce vœu formidable. 2 millions de mourites, 1000 francs CFA, 2 milliards par mois. L'histoire est un train qu'on ne doit pas rater. Nous tous, on fait partie de Daira, de Dara, de Panch. On a des, travails qu'on effectue, <clears throat> qu'on n'a euh, se sérigne. Mais c'est 1000 francs Ça personne ne peut être empêché de donner 1000 francs CFA, 10 euros par mois, pour Touba Tchakanam. Si on regarde bien, c'est devenu un des bras armés de Cher Armadou, de Cher, de Cher Mbake, de Cher Mountar C'est devenu un de ses bras armés. Regardez dernièrement la vidéo qu'il a montrée avec les dirigeants de Touba Tsekanam qu'il a convoqués, qui prennent en jour les personnes qui sont à quarantaine à Touba à cause du Covid. Mais Loulou, c'est une preuve réelle de, de, ce besoin qui viennent combler pour la bonne, la bonne, le bon développement de Touba. Parce qu'imaginez des personnes qu'on met à quarantaine à Touba, dans des appartements ou dans des endroits. Mais si on leur ramène pas à manger, si on ne satisfait pas leurs besoins, mais ils sont obligés de sortir pour satisfaire leurs besoins. Et qui dit sort avec ce qu'on connaît, la, la, capacité du Covid à, comment on appelle ça, la, sa, sa force contagieuse, Il suffit d'éternuer ou de parler ou de croiser une personne pour, euh, pour pouvoir euh, contaminer quelqu'un. Donc forcément, il reste chez eux. Mais le mourit, il a fait appel à qui À Toubat Sekanam pour prendre à charge ces besoins-là. Donc c'est un appel solennel. Nous, nous comme sétan. Mourit Bounek, Mounouko sétan lolo. C'est une histoire qui est devant nous. Toubat Sekanam, trois ans d'existence. Si c'est pas la main de Serine Touba qui est dedans, ça n'aurait jamais démarré. Donc maintenant, cette vague, cette déferlante, surtout bas, il faut qu'on l'accompagne, que chacun prenne ses responsabilités. Diaspora, 10 euros par mois, de façon pérenne. Sénégal, 1000 francs CFA par mois, de façon pérenne. 2 millions de mourites, 2000 heures par mois. Acha, Bissimila, Lu Andodo, Donne Benessé, Touba, Tchakanam, Touba, Tchakanam, Touba, Tchakanam, Kanam, Kanam, Kanam, Kanam. en avant jërëjëf borom Touba jërëjëf borom Touba jërëjëf Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul wajalilahi maskani Touba baat misras mi abi jaayi xayri ma nabaat